ginnaaw ba mu amalee ab visite ci centre d'examen ndaw yi nga xamante ni ñooy woyal seenub CFEE ca école élémentaire Liberté 1 ak collège Sacré-Cœur jëwrin bi yor wallum njàng meek njàngale bi di Moustapha Guirassi daal dinay amal ab taxaw seetlu ci yooyule les bu baax ndaxte euh, centre yi ñu visité euh, lépp a ngi jaar yoon euh, ñaari Euh, absence rek la ñu noté euh, ci ñaari centre yi c'est environ cinq cent candidats mais ci cinq cent ñaari euh, xale rek ñëwul donc globalement ça va enseignants yëpp ak chef de centre yi ak ñi war a surveiller ñëpp ñu ngi en place donc tout se passe très bien ci wàllu sécurité bi tamit lépp ngi en place lépp a ngi dox amul benn gàllankoor benn problème boo xam ni signalé nañ ko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 am na benn particularité mooy innovation yoo xam ne apporté nañ ko ci wàllu euh, dématérialisation maanaam euh, informatiser mbir bi pour correction yeeg euh, processus bi soo jëlee copie bi mu eggaat beneen bërëb yooyu yëpp mën a gaaw pour que ñu mën a sécuriser Euh, examen yi ak euh, processus bi yëpp euh, daf ci am solo ndaxte soo ko deful day gën a yéex te ci yéexaay googu tamit mën na am ay couac yu bëri donc yooyu pour mën a aar sa bopp ak aar examen yi li ngay def mooy dématérialiser ko maanaam informatiser ko ak digitaliser ko te am na ci solo loolu tam moom moo ñuy permettre souvent suñu daan joxe résultat au CFE dafa daan am ecar da ngay xaar lu yàgg doog jot yu entrée en sixième mais bi yoon ak liggéey googu ñu def euh, dina tax en fait euh, écart googu wàññeeku bu baax a baax quasiment simultanément d'ailleurs dinañu mën a am euh, proclamation résultat yi kon dans l'ensemble organisation bi mu ngi jaar yoon di jaajëfal autorité académique yi di jaajëfal autorité administrative yi di jaajëfal ñi nekk au niveau central comme ñu nekk ci biir réew mi ci liggéey ju rafet joo xam xam def nañ ko c'est quand même au total <clears throat> euh, trois cent et quelques mille candidats euh, di fàttali tamit ci candidats yooyu euh, cinquante quatre pour cent ou cinquante six pour cent d'ailleurs ay jigéen lañu donc des jeunes fii loolu tamit dañ koy bàkkoo Euh, ndaxte euh, jigéen ñi euh, seen scolarisation dafa nekk loo xam ni lu am solo la donc noté ni ci examen bi cinquante six pour cent ay fii lañu donc am na ci solo bu baax a baax a baax kon te tamit franco arabe bi gis nañ ni am na progression ñoo ci ay quinze mille et quelques candidats ci franco arabe bi. ginnaaw loolu moom jëwriñ bi yor wàllum njàng meek njàngale bi daal dinay félicité ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum njàngum xale yi ci organisation examen yi waaye itam itam jumtukaay yi nga xamante ne jël nañ ko loolee ngir lépp daal di jaar yoon